axusbillahi min asheytaani irajim bismillahi irrahmani irrahim inna allaha wa malaikatahu yusalluuna ala annabi ya ayuha allazina amanu muhammad mbokki kun fayakun tv ñu ngi leen di siyaare waat bu baax di leen wax ngeen gën a abonné ci chaîne bi tey partager vidéo yi tey nag secret euh, boo xam ne ne mu ngi dox ci way dencante ak ñi nga xam ne dañoo bëggante te bañ a ñàkkante ak ki nga xam ne ne euh, sa soxna dafa dem bala wala sa borom kër dem bala nga bëgg mu ñëwaat ci lu gaaw wala saa fum toog xelam du jóg ci yow ndax dafa doon secret bu doy doy doy waar ndax secret mi ñu ko tënk si aaya alxuraan waaye dafa am nun ko indiwaat ndax boo xoolee danga naan bismillahi rahmaani rahim nuun wal xalami nga yaatal ko jël fatiha nag ubbi ubbi miim yëpp boo xoolee fatiha mi nga am fukki miim ak juróom muy tolloo xawaa nga def nuun wal xalami wama wama gi wama miim googu nga yaatalaat ko nga dugalaat si fatiha boo paree nga dugal eh, taalib ak madlum ki nga xam ne ne moo bëgg boroom këram bëgg ko lool ak ki nga xam ne ne moo bëgg jabaram bëgg ko wala moo xam daal wala wala kim nekkal bëgg daal doon bàyyante trois jours nag la waaw secret bi trois jours lay diire boo ko bindee trois jours lay diire du ko génn day jàpp waaw ak lu mu mën a doon trois jours du ko gée du ko génn day jàpp secret bi nag boo ko bindee da ngay jël lem nga taqal ko si euh, tur yi ba pare nga suul ko beneen bi nga àddat seeni tur di ko sikkar si benn